ziyaar te di la ndokkeel waaye di la ñaanal suñu borom la dolli la kattan dolli la ay tawfiq ba nga gën a mën a liggéeyal sëriñ bi ci barke xasida yi di nuyu njabootu sëriñ Tuubaa yi fi teew yëpp mu mel ne suñ ci tuddee Cheikh Amadou Fall moom sëriñ Chouaïbou tudd sëriñ Maam Mor moom Cheikh Ahmadou Fadal tudd Sëriñ Abdou Samad Mouhamadou Bakhaari Cheikh Ahmadou Bamba day mën a yóbbaale ñëpp eh, di leen nuyu te di leen ziar waaye di leen sant di leen def sunu ndalum xel ak sunu rafetlu njort ndax liggéey bii bu doon ay dong rek a tasa du ko def. mën naa neex waaye lay tax mu gën a yaakaaru mooy njabootu Sëriñ Tuubaa nangoo sëpp si seen tànk ñoo teg ci barke kon Mbàkke ñu ngi leen di sant bu baax di sant seen rakk bu baax yooyu di di sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïb di borom yitte ju koy di borom pastif bu rëy di borom dogu ci liggéeyal maamam Cheikh Khadim ñun de xam nañ jëm lu ndax xam nañ fa nu newoon ban àndugul ak moom xam nañ fi ñu yegg si li ko def ginnaaw kon mbàkk jërëjëf ñu lay sant bu baax mu mel ne kaddu kilifa yi moom ñu ngi ci lan nañu sëriñ Mouhamadou Rafaay muy waxal sëriñ Tuubaa ak sëriñ Abdou Sama ñi nga xam ne mooy wax turu njabootu sëriñ Tuubaa rawatina cant yi nga xam ne sëriñ Hamza ëmbal na ko sëñ Tuubaa ak njaboot boppam ñun de te ñuy waxe mooy yi sëñ Tuubaa xaasale liggéeyam bu tedd bi ñuy xasida sëriñ Muntaxa waxoon ne fii ne ku yàlla defal nga bëgg sëñ Tuubaa wala nga sa xol daj ko yaa ngi ci biir tawfeex waaye nag ku bokk ci as bu xasida moom li nga am foofu na taw fee xaas kon maa ngi Sëriñ Tuba te xaasal boo gi mun a xaasal Tuba moom li ko yàlla dimbalee mooy sëriñ bi da koo defar teg ko ca kaw tànn na noonu teg ñu ci suuf li ñu liggéey ko mu bàyyi fa defar bi ko sëñ Tuubaa defar ca kaw ak i bokkam ñu fekk na nun taal bi sëñ Tuubaa yi ci suuf àndal na te man nu fopp li wax waxaale ko sëriñ am sa ñu ngi sant murit yi ko sëñ Tuubaa boole xasida ndax wax naa ne cantu bokkam yi mu bokkal sëñ Tuubaa ak cant gi mu ameel Cheikh Ahmadou Mountakha mu fi nekkal sëñ Tuubaa ak cant gi mu ameel Cheikh Al Khadim mi nga xam ne mooy daj képp ki loolu moom tuuti naa ci mi ngi ci làmmiñ si doon sot waaye nag cant gi mu cant dong yi àndal moom mën naa ko jot li ndax maa ngi ñu ngi sa sëriñ kan. nah, am sa neen mi ngi sant mbir mi mi ngi leen di gërëm waaye mi ngi leen di kañ ndax nee na parce que ci bat ba sëkk itte ci bat ba sëkk te li ko lal mooy ak dëkk te ni ngeen xam ne lu waaye am loolu lu mën a ak bëgg ko ko may ak bëgg mooy ndey lépp moo tax Cheikh mi gën a yeewu sëriñ bi day gërëm te ne ko sa loo bëgg ñu defal la ko def ko ne xanaa mbàkke di la gën a bëgg ndax ci bëgg ci la lépp neex looy gën a bëgg sëñ bi nag di gën a tuuf te bëgg sëñ Tuubaa ay martaba ay martaba ay martaba te fu mu yem rek mën naa gën a doon te soo gën a dox sëñ bi gën a dox ndax bokk na ci ay turam moom sëriñ bi booy dal muy dal moom sëñ Tuubaa kon sëriñ am sa nee mi ngi leen di seeral seen bëgg sëñ Tuubaa mi ngi leen di seeral seen doyloo sëñ Tuubaa mi ngi leen di seeral seen yitteeg seen pasteef sëñ Tuubaa ak bëgg xaside yi ak nangu ko liggéeyal sëñ Tuubaa xanaa leen ñuy soññ rek mooy ñu xam ne lu ab jullit di defal yàlla di ko yaakaar tuyaama jàng xasida ci gën a doy loolu la ko ñëpp xam doona makaati bi ibaadaati maa la sëñ Tuubaa wax xéti jamu yàlla yëpp ñu ngi ci suufu xassidi xassida xasida ngi seen kaw sëriñ am sa nee na ku yàlla dimbale nak ba yéggalé ko ko wax na xam sa bokk lim ñuy tere kay moy ñu yëg suñu bokk ndax yëg suñu bokk day tax a yàq tax a yàqule waaye sëriñ bi nee na lu bëgg ñu xam suñu bokk ba xam li ñu yàlla sédd ci sëriñ bi lu mu doon ñu téye ko te gën koo foog te xam li taxoon yàlla indi ñu fi te bàyyi ñu fi képp moo war a liggéey sëñ Tuubaa mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nañ ko xamee rek yooyu li muy baax baax sëriñ bi tànnal lu fa boromam jaamu boo xam ne moom rek ko jagoo muy xasida muy ahsanul ibaadaat kon képp ku ci yàlla dimbale war nga xam li nga mooy lan waroo kaf jëm ca waroo jaaxaan jëm ca waroo foo jëm ca mooy dafa ñuy wax kon ku ne am sañ ñu ngi leen di sant bu wér-wér di xam leen itam yemu ci rek wëlbati ay jukki ndax liggéey bépp bu mu sóob ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi gis na ànd gi ngeen ko ànd ak ak moom li ci mujj rek mooy mbaar mi ñu jàkkaarloo di mu ne bëgg naa ñu xàppe ko ak magalu xasida diggante bi matul weer ngeen def ci yitte def ci pasteef ba bant la ko jàng ne ku yendu ci mbaar mi mucc nga ci aw tàngoor mucc nga ci aw naaj te loolu si yitte ak seen pastif moo ko def ci ab laaj waxoon na ne euh, sëriñ bi ñett yi mu wax ne ku leen dajali ab murit nee na benn bu ne matal ngeen ko tubaali abdin muridin saalixin lahumu bi xidmatin aw bi ubbin aw adiyati sëriñ Abdoulaye mas a wax ne ñett yëpp matal ngeen waaye loolee si Abdoulaye seere woon sëñ am si nee nañu ñu ngi koy seer di leen sant te di leen ñaanal ñuy gën a jekku liggéey bi rek gannaaw loolu nag Cheikh Abdoul Ahad moom yi ñu daaneeloon te moom Cheikh Abdoul dama ne mat na alxuraani murit mooy delluwaay bi gën a wóor fii ba àddunay tukki lépp lu ñu jëm bépp liggéey bu nekk ak sëñ su suñ te bëggee gindi ko rek nañ delluwaat ci moom sëñ Ibrahima wax na ko bàyyi mbir mu xew mu ne sëñ Abdu Lahat na ko na ngeen déglu na xoolaat yoon wi yëgu bu ngeen fi dégg rek lu mu mën a doon sëñ Abdu Lahat wax na lu ko àtte liggéey bu ne sëñ Abdu wax na lu ca soññi jëf ju ne na luy tax nit sawar ko ak lan cay jële kon yal nañ ko yàlla fay sëñ Abdu Lahat dafa waxoon nag ne sëriñ bi bi muy nekk ci jamono maanaam waxtu bu mu dugg balaa waxtu waa dem dana sir sar sa waxtu ci ay jàmm ci ay jëf ba waxtu wa diis kenn soo ko dem mu waajal leneen nun ñi fi nekk di ko liggéeyee ni ñu war a def mooy liggéey bu jeex ñu tàmbali beneen gannaaw cant gii si ñu am sa sant ak ngërëm bi mu ngërëm ak mbégte bi mu am nee na bu kenn noppal nañ jaajuwaat ci takkat gi xam ne liggéey bu yees taq ñu ñii te kenn war te tekk sa laxasaay ci yëg jég bu ñu jaajëf borom bi wax te Cheikh Rafal lii nangul yàlla mooy nangul borom jamono boo xasee nangul borom jamono rek Cheikh Fall nee na nangul nga yàlla lépp soo ko xasee gàntu gàntu nga yàlla lépp nee na moo tax turi doom sax sëñ Tuubaa laa ciy déglu bala maa tudde kenn sama kër damay laaj ku mujj kër sëñ Tuubaa kenn rek la tudde ca mu mag kañ ko tudde mooy sëriñ Basiiru ca daa dégg sëriñ bi ni bi muy dem ci géej gi ne bu ganee jamono ju góor nañ ko tudde Mouhamadou Bachir su dee jigéen nangam mu ne sëñ Tuubaa lam wax la yàlla lim njëkk a wax la yàlla lay def doom ju góor feeñ mu ñëw dañ ko tudd Mouhamadou Bachir ndax xam naa ne sëñ Tuubaa ki muy wax Bachir lay doon sëriñ Bachir Mba Fall moom ak sëriñ Bachir Mbacke waaye loolu la ko waral Cheikh Fall noonu la toppee seen sëñ Tuubaa ba ci Abdou Sakkoor nee na Abdou Sakkoor moom dama ko sant sëñ Tuubaa Mouhamadoul Moustapha Mouhamadoul Moustapha Fall Mouhamadoul Fadal Mouhamadoul Fadal Fall Cheikh Abdoulaye Fall Ndar Cheikh noonu la toppee rek ba ci sëriñ Abdou Sakkoor mu dama ko sant sëñ Tuubaa